waaw mbokk yi ba tey ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi ci biir jumaa ji di leen saytu liggéey bi ak gan yi fi màggal si ak mboolem pàcc yi nga xam ne daa aju ci biir liggéey bi yëpp ba màggal gi mën a yéwén te mbokk taalibe di ci jàppee ci anam bu nekk ñu ngeeg ñi nga xamante ni dañoo bàyyi ko ba diwaanu ndakaaru di ay ndongo di yëngu ñoom it ñu ñëw fas yéene fësal seen liggéey ci màggal gi seen pàcc ci màggal gi seen wàll ci màggal gi ngir dégg mbootum màggal gi na ko Serigne Saliou waxoon ku ci feeñ feeñ ba faaw yaakaar naa moo taxit ñoom ñoo ñi ñu bëgg ñëw feeñ ci fës ci ndax ñu mën a raw ni seen maas ndax la alxuraan waxoon was saabiquuna saabiquuna ulaaikal muqarrabuun kon dañuy dëkk sëñ Ahmadou Bamba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay mu mel ni yow da ngaa bokk ci jëwriñ yi nga xam ni yéen a liggéey bi fu ngeen bàyyi waaw ah, ñu ngi bàyyi ko Ndakaaru ah, man ma ngi nek étudiant en master 2 faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie sama ñaari collègue ñu ngi nek en euh, doctorat 1 muy 6e année médecine dañu ñëwoon euh, fessel suñu yéene ci magal gi. ci ban anam ngeen koy fësalee. waaw ci anam bi nga xamanteni ci lañu yalla xir li nga xamanteni mom moom lañ jàng di saytu wérgu yaramu doomu adam donc euh, yalla def na ni 4 ans mu ngi ni ci ren heure bu ñu ñëwé magal li nga xamante ni si la ñuy yëngatu muy saytu wér-gu-yaramu doomu aadama si la ñuy màggale daal maanaam en quelque sorte. naka ngeen koy waajale waaw ni ñu koy waajale mooy dañuy bàyyi suñu lépp dajale suñu lépp tamit waaw lépp lu am ñu ñu ñu ñu dajale ko waaw def li nga xamante ni moom la sëñ bi digle waaw dajale suñu suñu alal suñu am-am suñu mën-mën ñëw jàpp si bësam bi ba képp nga xamante ni daf fiy ñëw su fi indee jàngoro ñu mën waaw te te ci lépp nag ci ci ci ndimbalu sëñ bi rek. waaw loolu rek ku am tawat bu ñëwee da ngeen koy faj saafara ko jox ko garab te du génn. dara waaw ko ku fi am tawat wala ku ñëw ba fii yàlla def sa yaram xaw a sutante soo fi ñëwee fi ñu nekk bëri na ay antenne ñun benn benn pàcc la rek ci ci li nga xamante ni ñoo déplacé wu yëpp pour ñëw fi donc ku fi ñëw dinañ la saafara may la garab te doo doo doo fay dara. waaw bi ngeen ñëwee léegi ndax euh, jànkonte ngeen ay cas yu difficulté yoo xam ni métti na jaaxal na leen wala jànkonte bu leen benn jax benn cas. non bi ñu ñëwee ba léegi nag jànkonte yooyu ñoog benn cas parce que ñun ñoo ngi ñoo ngi basé wu kër Soxna Assou Mbacké ak kër Sëñ Fall Mbacké docteur donc ñaari sites yooyu noonu lañ basé wu mais bi ñu ñëwee ba tey yàlla def na ni jànkonte gu ñoog benn cas waaw loolu moom yàlla def na ni. Euh, ñi fay ñëw ñëpp amaguñu cas bu garaaw wala. amaguñu ay kii waaye nag jour màggal gi moom xam naa ni si la ñuy gën a liggéey bi ak trajet bi di yoon bi day xaw a métti par eh, jour bu mel ni tey moom lu si bëri sax nit yi duñ duñ accès gum comme comme comme ni mu waree donc donc loolu mooy tax sax euh, liggéey bi duñ ko tàmbaleegum ba dugg si à fond mais xam naa ni suba moom incha allah euh, waaw ngi ñu ngi ñoo ngi fa de huit heures jusqu'à vingt deux heures vingt trois heures. incha liggéey bi ndax yomb na wala yomb. ah liggéey moom <laughs> waaw liggéey moom yombul wax dëgg fa yàlla yombul parce que. Euh, dafa nekk liggéey bu nga xamante ne déjà dafa laaj ci concentration parce que lu délicat la waaw ndaxte saytu wérgu yaramu euh, doomu aadama yàlla jox ko ñëpp donc donc mënut a yomb mënut a yomb ndax nit suñu borom rek moo ko mun a faj donc ñun dañuy sabablu rek waaw loolu mooy tax euh, liggéey bi moom yomb moom yomb moom mënu ko def mënu ko def wax dëgg fa yàlla. ban message ngay daanelee ngir kenn ku nekk la nga xam ne moom la ko yàlla cëralee mu mën ciy def lu baax. ak di ci liggéeyal sëriñ bi. waaw comme ni nga ko waxee rek sëñ bi moom comme ni mu ko waxee rek amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ndax soo xoolee moom waxal na ko boppam waaw donc ñu ngi ñaan ndaw ñëpp ak ku mu mënti doon ci lépp loo yëngatu te tam leer la ni lii nii muy mécanicien bi muy muy soudeur bi muy muy menuisier bi ak fu waay mënti nekk di fa yëngatu. waaw te nga xam ne bisub sëriñ Tuubaa bi mu woote su jotee yow sa sa sa teewaay soxla nañ ko foofu nga ñëw def ci sa kentulaay kàttam parce que mbir mi moom niñ koy waxee teen la rek ñëppay root waaw ku nekk nag fa nga fa nga fa nga nekk nga jëm caa root ba ba am lu nga xamante ni di nga ko mën a yóbbu sa kër waaw donc loolu daal mooy message bi bi nga xamante ni mooy jërëjëf